donc cette année-ci Gossas dafa changer de donne en quoi faisant en organisant un camp chantier parce qu'on a senti que vraiment Croix-Rouge à chaque fois que de besoin dañ daan mettre l'accent sur les camps de recyclage en technique de premier secours mais cette année-ci on a senti vraiment de se basculer sur l'utilité publique muy beneen volet boo xamante ne mu ngi suñu euh, principe maintenant si lañ xalaat ne pourquoi pas ne avec la collectivité territoriale organiser un camp chantier pour au moins def des activités de citoyenneté dans la ville pour participer vraiment au développement de notre commune parce qu'on a vu que le maire est en train vraiment de tout faire pour embellir la ville ñu ne on va apporter vraiment notre pièce à l'édifice organisation bi nag jafewul woon jafewul woon trop parce que euh, on a pris les devants on a très bien préparé l'activité donc euh, jafewul woon parce que tout était ok daal parce que activité moom dafa am étape avant pendant et après je pense bien que on donc euh, ñu ngi siy gërëm encore bu baax a baax tous les comités qui sont là parce que ñoo nañ fekk ñu fi jàpp si liggéey bu baax a baax pour que l'organisation réussisse mooy damay rejoindre les propos de notre président national elle sait toujours que ñu am benn société nationale forte avec des ressources de qualité quand on parle de société nationale forte nag mooy dañoo war a boole suñu doole parce que bu ñu boolewul suñuy force rek si on est divisé on sera faible moo tax j'ai lancé un appel aux am benn cohésion sociale benn force pour que vraiment lu ñu song ñu daanandoo ko benn affaire bi mooy on sait que vraiment la Croix-Rouge repose sur euh, la philosophie du nombre mooy on a besoin des membres dans les localités pour am un comité local wala un comité départemental donc moo tax j'exhorte aux volontaires que à chaque fois ku dugg war nga mën a fexe sensibiliser sa morom ba mu dugg parce que tey un comité booy dugg comité bi nekk mille personnes yow tu tu dois dire que ne par exemple à un temps T à mille deux cents parce que liggéey na li parce que jóge si koñ ñëw croix rouge pendant deux trois mois mënoo convaincre kenn pour mu ñëw croix rouge je pense bien que ne yow c'est croix rouge wala mënoo jaay croix rouge parce que croix rouge c'est un produit à vendre ko jaayee les populations vont adhérer vraiment à ce structure là perspective yi si je pense bien que on a plein d'ambition dans le département euh, je pense bien que préfet wax na ko barki dem cérémonie officielle bi maa ngi koy gërëm bu baax a baax si teewaayam euh, on a kër yu bëri dañuy lakk fii parce que zone bi moo ko laaj donc actuellement avec le l'administration on est en de voir comment faire pour installer un grenier local donc euh, si lañ nekk parce que la période est favorable ñu ngi en période de récolte sous peu on va on va installer le grenier on va convoquer un CDD pour mettre les dispositions pratiques yoo xam dañuy permettre que ñu mettre en place ce grenier là pour que ëllëg bu ñu amanee incendie au lieu ñu xaar ci kaw wala état di dimbale au moins qu'on puisse subvenir aux besoins des beneen affaire bi encore on le désire mooy l'installation ou bien l'élargissement des camaraderies parce que on sait que c'est l'ossature de la Croix-Rouge on a parlé avec l'IF de Gossas la correspondance a été vraiment écrite et la collaboration est nouée ah, mais on a senti on, on va faire de sorte que daal fii dans chaque école élémentaire on va installer une camaraderie pour au moins encadrer ces jeunes là pour encore refaire revivre cet aspect important